damay wule ba cuun xam ne wul naa ko Ablaye Diop ak Omar Malick ñëpp kii daf ma sonal dañ damay daanu mu bu defe na nooy neex laa du ma nooy neex manoot di lay booleeg moom wule ko ba monte ko dama koy wuli ba boo mu nooy man maay wulitu liif yi la laay jëlaat wuli ko ko ba mu nooy moom mii ba président ba xaw liif yi mu yor laay nangu wuli ko ko ba mu nooy commissaire Ablaye Diop sama père mère sembe mi dinaa ko wuli ba mu nooy parce que damaa sonal maa ngi daanu mu foog na damaa nooy neex du dama nooy neex maa ko mën dinaa ko wule ba Abdoulaye Diop xam ne wuy naa ko parce que bi may doog a ñëw Dakar ban përsi dama dooroon door yu miti door yi ma doon yëpp laay wuli big pato ba mu nooy nepp Papa Thierno man ku xam xam ni si yar lañ ma wax wax manuma ko jëf laa man damay gërëm sama hiérarchie bi li ko commencé ci général Mal général Ousmane Sy général Lam waa Zémi waa école police sama directeur Ousmane Gueye DSP Abdoulaye Diop nga wulli dafa yor laa ñam di wax rek mais moom bu tëddoon ba guddi ñu yee ko ne ko ndax mën nga dara ci Big Pato xam na ni moom mënul si man dara parce que bokkuñ objectif man ma nekk si yoon te du moom moo ma koy yàqal waa police ma leen yoreel bor sama journée bu mujj neexuma te nag gaynde bu fanaanoo mer da nga koy moytu na moytu boppam. fanaanoo man mi nga ne nii boo yëpp li ma yow yow maa gën a na yow yow li ma daanu daanu woo maa la gën a mer dinaa la wuli nga naan wuli bañ a wuli mënoo wuli la de nga wuli la wax kii Ablaye Diop am na kii dinaa ko wuli amal maal su ma paree moom xam nga nun lay tudd wal lay tudd parce que danaa ko wal kam tege dege dama lay wuli